fukk ak mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nañu mbégte ci leen mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub li ñuy def mooy gëstu ci mbind yonent yi yëgle yoon wi yàlla tëral ngir nit mën a jub fa kanamam tey jii nag ci ndimbalul yàlla fas nañu yéene nafar te tënk li nu jàngoon ca ndoorte la ba tey ci tawreetu yonent yàlla muusa tawreet mooy téere bu jëkk ci mbind yonent yi téere bu am maanaa lool ndax mooy fondement bi yàlla ci boppam tegoon ngir nu mën a nattu lépp li nuy dégg ba xam ci yàlla la jóge wala déet tawret nag juróomi téere la wala juróomi xaaj xaaj bu jëkk bi lañuy woowe njaalbeen gi am na juróom fukki saar ci téereb njaalbeen gi ci sunuy njàng yu chronologique nu ngi yemagum ci saar fukk ak benn ndax mën ngeen a fàttaliku li ñu bind ci aaya bi jëkk ci kàddug yàlla nanu ko jàngaat mu ne ca njalbeen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf yàlla mooy boroom alaxira ca njalbeen ga àddina si amagul woon yàlla rekk a doon dund yàlla xel mu sax la te amul njalbeen moo tax aaya bi jëkk ci mbind mi ne ca njalbeen ga yàlla noonu gisoon nanu yàlla laata muy sàkk àddina si ni mu binde woon alfuni alfuni junni junni xel yu sell tudde leen ay malaaka ci biir malaaka yi amoon na ci benn bu ci ëpp xel te gëna rafet yeneen malaaka yépp moo doon lucifer mi yàlla fal kilifak malaaka yi wante mbind mi dafa wax ne amoon na bés lucifer bàkku xeeb yàlla ci biir xolam ba bëgg a jël palaasam sax amoon na it yeneen malaaka yu bare yu tànnoon topp lucifer ci bàkkaaram looloo taxoon yàlla mi mënula dékku njubadi dàq lucifer ak malaakaam yu bon ya te soppi turu lucifer mu nekk seytaane li tekki bañaleb yàlla te gannaaw ba yàlla dàqee seytaane ak ay malaakaam mu sàkkal leen safara sudul fay te mbind mi dafay wax ne keroog bésu penc ba yàlla aji jub ji dina sànni seytaane ak képp ku ko topp ca safara soosu noonu jàngoon nanu ni yàlla aji sax ji sàkke asamaan suuf géej ak li ñu ëmb lépp ci juróom benni fan te jëfandikoowul daara lu dul kàddoom yàlla bindoon na lépp ngir nit ki mu fasoon yéene sàkk nit moo di mbindeef mi yàlla gën a fonk ci lépp li mu sàkk ndaxte dañu ko sàkk ci melokaanu yàlla yàlla dafa bëggoon a am diggante bu xóot te neex ak nit ki mu sàkkoon looloo tax mu sol ci ruwu nit xel ba mu mën a xam yàlla may ko xol ba mu mën a bëgg yàlla te dénk ko coobare ba mu mën a tànnal boppam déggal yàlla walla ñàkk ko déggal ci ñaareelu saar ci tawret nag jàngoon nanu ni yàlla jëmbate toolu ajana ci kaw suuf tàbbal ca nit kamu sàkkoon maanaam aadama yàlla ci mbaaxam mayoon na aadama lépp ba mu mënoon a dëkk ci jàmm ak naataange gu mat te ca bés ba yàlla sàkkee aadama mu ne ko mën nga lekk ci bépp garabu tool bi waaye bu lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ndaxte bés boo ci lekkee keroog faawu nga dee noonu gisoon nanu ni yàlla tege woon ab nattu ci kanamu aadama yàlla dafa bëggoon a am diggante bu xóot ak nit ki mu sàkkoon ba tax mu nattu ko may ko sañ-sañu tànn bëgg ko ba déggal ko walla bañ koo déggal jàngoon nanu it ci bés bi yàlla sàkkee adama ni ko yàlla joxe may gu neex lool muy jabar yàlla defar jigéen ca faar ga mu jële ci aadama indil ko ko adama tudde ko awa noonu ca juróom benneelu fan ba yàlla mataloon na jëfam te mbind mi ne yàlla gis lépp li mu def fekk lépp a baax lool te ca juróom ñaareelu bés ba yàlla noppalu te bég ci lépp li mu liggéey ci saar ñett nag gisoon nanu ni bàkkaar dugge ci àddina mbind mi daf nuy nettali ne benn bés bi aadama ak awa taxawee ca wetu garab ga yàlla tere woon seytaane ñëw ci melow jaan naan ndax yàlla wax na bu wóor ne bu leen lekk ci genn garab ci tool bi jigéen ja tontu jaan ja mën nanoo lekk ci doomi garabi tool bi waaye garab gi ci digg tool bi yàlla nee na bu leen ci lekk bu leen ko laal sax ngir ragal a dee jaan ja na jigéen ja mukk du ngeen dee waaye yàlla xam na ne bés bu ngeen ci lekkee seeni bët dinañu ubbiku te dingeen mel ni yàlla xam lu baax xam lu bon naka noonu gisoon nanu ni seytaane weddee kàddug yàlla lan la yàlla waxoon aadama ak awa ne dina leen dal suñu lekkee ci garab gi mu leen aaye woon mu ne dingeen dee seytaane nag lan la wax mu ne du ngeen kàddu kan la aadama ak awa tànn gëm ko te topp ko kàddug yàlla wala kàddug seytaane mbind mi won nanu ni aadama ak awa tànne woon nangu kàddug seytaane ba lekk ca doomu garab galeen yàlla tere woon seytaane naxoon na awa ba mu tooñ wante aadama tànn na bañ ndigalu yàlla topp seytaane noonu mbind mu sell mi ne bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp gannaaw loolu gisoon nanu ni yàlla dàqe aadama ak awa toolu ajana ni mu ko digee woon wante laata mu leen di dàq yàlla ci yéeneem ju rafet dafa dige woon ni mu naroona yónnee ci àddina ab ramukat ngir mun jot doom aadama ci dooley seytaane bàkkaar ak dee te firndeel na dig googu ci li mu rendi ay mala defar ci yërey der solal ko aadama ak awa jaarale ko ci saraxi mala yooyu nag yàlla doon na jàngal aadama ak awa ne peeg bàkkaar moo di dee te su deret turuwul mbaalug bàkkaar du am ci saar ñeent nag jàngoon na nanu nettali bi ci mbirum ñaari doomu aadama yu jëkk ya di kayin ak abel gisoon nu ni abel jébbale yàlla mbote mu amul sikk rendi ko ni sarax suy dindi bàkkaar ni ko yàlla defale woon waajuri abel waaye kayin moom dafa doon fexe jege yàlla ci pexe boppam di ko indi li mu bayoon ci suuf si yàlla alagoon noonu mbind mi yàlla aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin yàlla layoo woon na ak kayin ngir mu réccu te nangu yoonu njub wi mu tëraloon wante kayin deful ludul mer rekk ba rey abel rakkam waaye yàlla mayoon na aadama ak awa jeneen doom ju tudd set set ni abel gëmoon na yàlla te di ko jege ak deretu sarax noonu gisoon nanu ñaari askan yi soqi ko ci aadama maanaam askanu kayin ak askanu set askanu kayin gëmul woon yàlla waaye ci askanu set amoon na ñu ko gëm amoon na kenn ku soqi ko ci set ku tudd enok mu àndoon ak yàlla ci jamono ju rëb enok amoon na sët bu tuddoon nooyin ci bési nooyin ya gisoon nanu ni yàlla dogale woon far doomi aadama ak mbënn ndox ma ndax seen jubadi ca jamono ju dëng jooja nooyin rekk gëmoon yàlla ba tax yàlla wax ko mu defar gaal gu rëy gi naroon a nekk rawukaay ci moom ak njabootam ak bàyyima yu bare ci diirub téeméeri at yàlla di muñal bàkkaarkat yi dajeeg jamono ji nooyin doon yett gaal ga wante kenn tuubul bàkkaaram ba gëm xebaaru yàlla lu dul nooyin ak njabootam kon ca mujj ga yàlla defoon na lépp li mu diggewoon atte àtte na ñépp ñi gëmul woon dëgg gi te doon bànneexu ci biir njubadi gisoon na nu it ni nooyin ame ñetti doom sem kam ak yafet ci ñetti nit ñooñu la xeeti àddina sépp soqi wante gis nanu ni lu ëpp ci seen askan fàtte woon yàlla ak kàddoom ci sunu njàng mi weesu ci saar fukk ak benn jàngoon nanu ni nimrod ak ñi àndoon moom façon yéene boole waa àddina ci benn bërëb tabax dëkk bu rëy ak soror bu kawe ngir bañ kilifteefu yàlla wante yàlla àtte na leen ci limu safaan seen làkk ba tasaare leen ci kaw suuf sépp kon ci gàttal loolu mooy li nu jàngoon ci ndorteel téereb njalbeen gi ci saar benn ba ci saar fukk ak benn léegi nag nan lanu mën a tënke li gisoon ci nettali yooyu yépp lan la yàlla bëgg xamle jaare la ko ci li xewoon ci njalbeen nga li mu ci bëgg a wax bare na waaye lenn rekk lanu ci mën a faramfànce tey mooy nit dafa jubadi waaye yàlla moom ku jub la ci sunu biir njàng yi gisoon nanu ay yooni yoon njubadik nit gis nanu ko ci toolu àjjana bi aadama lekkee ci garab gi feeñaat na ci kayin taawu aadama moom mi bañ a jaar ci yoonu njub yàlla tëraloon gisoon nanu njubadi googu it ci askanu kayin ak ci niti jamonoy nooyin ak ci ñi doon fexe tabax dëkku babel ci tënk nettali doom aadama mooy nit dafa jubadi moom la mbind mi wax ne nit ñépp ñu ngi ci nootaange ak ku jub amul du kenn sax kon lu nu ci war a wax ndax njubadig nit mën na gàkkal njub teg yàlla mukk mbind mi nee na su ñépp nekkee ay naaféq du tere yàlla nekk dëgg jikko ju jubadi ji nekkoon ci nit jógewul ci yàlla yàlla moom ku jub la te sell kuy sàmm kóllëre la te du tebbi ay waxam yàlla aji leer la te genn lëndëm nekkul ci moom gisoon nanu njubteg yàlla bi mu dàqee lucifer ndax bañ kilifteefam te gisaatoon nanu ko bi mu daqee aadama ak awa ndax seen njubadi ak seen ñàkk kóllëre yàlla feeñaloon na njubteem ba mu diggee ab ramukat bu jub bu naroon a ñëw feyal doom aadama seen boru bàkkaar gisaatoon nanu ko bi mu santaanee ne bu deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am yàlla wone na njubteem bi mu nangulee abel saraxam te nangulul kayin mi falewul yoonu njub wi gisaatoon nanu ko it bi mu yónnee mbënnu ndox ma ngir far niti jamonoy nooyin yàlla feeñalati njubteem bi mu jaxasee làkku àddina ndax ña doon tabax dëkku babel te doon fexe bañ kilifteefu yàlla kon ci nettali yooyu yàlla dafa nu bëgg xamal ne ku jub la te mënula dekku lu jubul yoonu yàlla yoon wu mat la te jub yàlla du nangu kenn ku bañ nangu yoonu njub yu mu tëral lépp lu amul njariñ te taq bàkkaar faw mu àtte ko mbugal ko far ko ba mu des lu jub rekk nan lanu mën a tënk sunu nafaru tey nag xanaa ni gis nanu ne nit dafa jubadi waaye yàlla ko jub la wante loolu taxul sunu yaakaar tas ndaxte yàlla ci yiwam feeñal na nit ñi jubadi mën a jube ci kanamam ndax xam nga yoonu njub yàlla tëral soo ko bëggee xam nanga déglu émission yi di ñëw ci njàng mi di ñëw bu soobee yàlla dinanu tàmbali gëstu nettali nit ku ñu daan woowee xaritu yàlla mu yonent yàlla Ibrahima te ci nettali Ibrahima lañuy gis ni ñi jubadi mën a jube fa kanam yàlla kon nag mbokk yi fii lañu war a yem tey ba émission bi di ñëw bu ngeen amee ay laaj ci lu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub PP 370 Saint-Louis leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li kàddu yàlla wax bi mu naan lépp lu ñu waxoon ci mbind mi lu jiitu tey dañu ko tëraloon ngir nu sàkku ci xam-xam xam-xam bu nuy may fit ak muñ ak di feddali sunu yaakaar